di nuyu di leen gërëm di leen sant ci seen taxawaay di leen gërëm di leen sant ci teew bi ngeen teew ci waxtaan bi ñu leen invité tey dañu jagleel ko waxtaan ci li nga xam ne mooy actualité bi ci réew mi laata ñoo tàmbalee dañuy njëkk a bàyyee xel mbokk yi ak xarit yi nga xam ne inondation yi ñu ngi leen di teg fitna fii ñuy toll ñuy ñaan yàlla taxawu njabootu Sénégal yépp taxawu leen génne leen ci tiis wi waaye sunu xel itam dina dem ci sunu mbokk yi nga xam ne jóge nañ fi te Covid 19 bi doon ñi nga xam ne moo moo ko waral ñuy jaale seeni famille di jaale seeni njaboot di jaale seeni doom. di jaale seeni njaboot yëpp di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne yàlla jëlee na leen fi fa ñu jublu gën leen fopp fi ñu dëddu tey ñaanal seeni mbokk ñi des ginnaaw fañ leen féete woon yàlla féete leen fi bu ko defee euh, ñu fàttali ne ni nga xam ne noonu la dalee réew yu bari ci àddina bi ah Sénégal mi ngi xeex li nga xam ne mooy doomu jàngoro boobu ñuy woowee coronavirus mu doon benn balaa boo xam ne Sénégal yëpp la dal waaye dal àddina bi yëpp itam nërmeel seen wér yaram nërmeel yi tamit li nga xam ne mooy seen koom-koom ba pare song seen système de santé ah Covid 19 nag doon na jàngoro boo xam ne ñëpp a ci jàng ndax lu bees la lu kenn xamul nu muy doxalee bët bu set. ak diggante weer ak weer waaye Sénégal ràññee nañ ko ci taxawaayam naam bi tax bi jàngoro bi taxawee ba léegi ci réew mi am na lu toll ci julli junni ak ak ak juróom benn téeméer yi nit ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ñuy jaale seen njaboot yëpp di ko jaale Sénégal yëpp waaye seetlu nañu tamit ne Sénégal na mu war a taxawee mi ngi koy taxawee ci wàllu xeex jàngoro bi ñu ràññee ko ci lool ba nga xam ne tendance bi nga xam ne seetlu nañ ko ci feebar bi fan yi weesu mu mel nii toll na du ñu ne jeex na waaye toll na ci foo xam ne jàkkaarloo nañ ak moom ndax sénégalais yi jël nañ seen matuwaay commencé waat jël geste barrière yi boole ko ci li nga xam ne mooy mooy dund bi bët bi set di takk masque yi di dandante boole ci tamit Sénégal am na taux de vaccination boo xam ne xaw na kawe nit ñi ñu ngi commencé di vacciné wu loolu nag ñu ngi ñaan yàlla mu jëm kanam ñuy encourager effort yi nga xam ne nguur gi jël na ko ngir fexe ba nga xam ne système de santé bi dina mun a jàkkaarloog situation bi ci wàllu vaccin dina ko mun a jàkkaarloog moom ci bi wàllu jumtukaay ak centre de traitement yi nga xam ne moom lañ équiper à un niveau exceptionnel ba pare nag ñuy ñuy encourager campagne de vaccination bi nga xam ne lancé nañ ko fépp ci réew mi te kilifa yëpp di ci jàpp rawatina nag kilifa diine yi ñuy rafetlu kali taxawaayu kilifa diine yi ci xeex boobu ndax fi nga xam ne li war mooy yëkkati askan wi xamal ko li nga xam ne mooy yoon wi ci ni mu war a jàmmarloog ni mu war a jàmmarloog Covid 19 sunu kilifa diine yi suñu jógee wax ci day fekk ne day yokk fit ñi nga xam ne mooy nguur gi day yokk fit technicien de santé yi day tax li ñuy wax. ñu mun a xam ne fi fiñ ko teg fu dëggu la te suñuy kilifa diine ñoo ci jiitu suñu munee wax ne it am nañu succès bu relatif ci li nga xam ne mooy xeex bi yi nga xam ne moom la ñuy xeex Covid 19 nañ ko war a gërëme yi tamit ñi nga xam ne mooy fajkat yi ak euh, le personnel médical nga xam ne bët bu set ñu ngi taxaw temm jàkkaarloog feebar bi léegi léeg ñoom seen bopp feebar bi boom leen te du leen tax arrière. coalition Benno Bokk Yaakaar ak ñi mu àndal yëpp ak majorité présidentielle bi yëpp ñi ngi jaajëfal di naan ngàcc jàllama ñi nga xam ne mooy fajkat yi ñi nga xam ne mooy personnel médical bi ak paramédical bi nga xam ne moo tax ñuy mën a jàmmarloo ak li nga xam ne mooy mooy Covid 19 bi ñuy gërëm yi tamit di ñaax di encourager le gouvernement le président de la République ak son gouvernement nga xam ne effort yi ñuy def ngir mën a jëli vaccin.

bañ ko jaxase suñu xel bañ ko indi féewaloo ci suñu biir ndax kat ndam ci li mu xaj ci feebar bi mooy di xàccandoo di dóorandoo am benn objectif ndax fii ndam su amee ci feebar bi kenn gañewul Sénégal a gañe ñu fexe kon ba Sénégal gañe ñi nga xam ne ñoo yor responsabilité yi ñuy nguur gi ñu topp seen ginnaaw médecins yi nga xam ne ñoo xam li nga xam ne mooy paj ñu topp seen i tegtal topp suñu ndigali kilifa diine su ko defee victoire yi ñu amoon ci at bi wees dinañ continuer di ko am te dinañ am ndam ci li nga xam ne mooy Covid 19 bi noonu ñu war a doone benn nag noonu la ñu war a doone benn tamit ci wàllu inondation ndax inondation dafa bëri ay pàcc yoo xam ne mun nañ ko ko expliquer bi ci njëkk mooy loo xam ne la yàgg na ci wàllu aménagement ñuy euh, rafetlu nag tey ràññee président de la république le président Macky Sall. bi mu jëlee nguur gi ak régime ni mu gaawee gis ne problème mu mbënn mi du problème mu benn bés problème mu ay at la ak problème mu gis-gis boo xam ne day law ci ay at yu bëri ba tax na très mu daal di lancer li nga xam ne mooy le plan décennal de lutte contre les inondations def ci lu toll ci juróom-ñaari téeméeru junni euh, milliards waaw foog naa noonu la juróom-ñaari <laughs> téeméeri juróom milliards voilà xaalis boobu yëpp nag. mu régler inondation ci ay gox yoo xam ne ñi fay dëkk ak ña fa dëkkoon doon dundu mbënd mi at mu jot ñooñu soxlawuñ seede ci li nga xam ne mooy résultat yi ñu jot a am ci wàllu mbënd mi nga dem fu demee ni Dalifort nga dem fu demee ni Médina Gounass nga dem Pikine nga dem Guédiawaye nga dem Touba centre nga dem pikin nga dem Kaffrine nga dem fi nga xam ne mooy Maguilène Senghor Ouest Foire wala nga dem Foire de Dakar wala nga dem Grand Yoff fépp foofu ci gox yooyu ak gox goxaan yi ñu tudd waxu mbënd jeex na fa te li tax mu jeex fa mooy plan décennal bii ñu jël jagleel ko xeex li nga xam ne mooy mbënd mi mais pas simplement xeex ci waxi kese xeex ci ay infrastructures d'ouvrage yoo xam ne day mën a draguer xeex ci drainage des pluies des eaux fluviales xeex ci bassin de rétention loolu moo joxe résultat yi waaye ku la ne plan décennal nangu ne ne du lu ñuy xeex ci benn bés ba tax na dañuy seetlu itam ne mbënd mi bokk na ci leneen li ko waral mooy les changements climatiques nga xam ne mbënd mi dalatul Sénégal rek day dal Sénégal waaye day dal Inde day dal Niger dal na Belgique dal na Grèce dal na dëkk yu bëri li ñu seetlu foofu tamit mooy lu demee ne naqar yu demee nii su dalee ci askan wi sunuy mbokk ñun ñëpp fa dëkk sénégalais yi kenn mënu leen jël xaaj xaaj leen ñaari pàcc sunuy mbokk sunuy doom sunuy bàjjen sunuy baay sunuy yaay ñun ñëpp ñoo tënku ci jafe-jafe yooyu donc nañ bàyyi li nga xam ne mooy féewale bi te am taxawaayu benn say xool nañu mën a régler problème yi bokk trouver ay solution ñu trouver ko te ña nga xam ne ñoo nekk ci difficulté yooyu gouvernement bi nag président de la république jox na ndigal pour ñu jël le plan Orsec ñu di ko rafetlu loolu nag soo ko déggee mooy dinañ dajale koom-koom ak moyen ak ressources yu takku ngir mun a fekk sunu mbokk yi sunu concitoyens yu nekk ci difficulté yooyu ñu mun leen a roof loxo jàppale leen ngir dindi fa ndox mi waaye jàppale yi tamit yi nga xam ne ñu ngi ci jafe-jafe yi dëkk ci ndox mi bët bu set ba fexe ba mu gën a woyof waaye li ñu mun a jàpp euh, euh, te te mu doon loo xam ne mooy luy wéy mooy inondation moom ci suñu réew dafa doon loo xam ne son ampleur dafa am de des défis multisectoriels et complexes mooy maanaam ci li muy laal ci wàllu pàcc daf ci bokk wàllu environnement wàllu changement climatique waru aménagement du territoire wàllu administration foncière loolu yëpp nag président de la république ak nguur gi ñu ngi ciy liggéey bokk na ci mesures yu ñu jël. société boobu ñu créé mu doon société bu bees tax tudd société d'aménagement notamment avant euh, notament Safru voilà Safru donc moo am moo am responsabilité balaa ñoo tabaxati ñu def l'aménagement nécessaire lii mooy li nga xam ne mënoon nañ ko jël ci ci ci ci ci mbënd mi waxtaan ceeg yéen ñu seetlu nag fan yi weesu ka ndox mi bëri na ñu di ko sant yàlla ndaxit ndox moom lañ soxla ngir mbéy mi ñuy fàttali ne campagne agricole bi ak campagne agricole yi weesu